Euh, euh, di rafetlu euh, déjà liggéey bi nga xamante ne Marie-Louise def na ko. Mm-hmm. li mu wax nii en fait tant que demoo nga dund ko nga gis ko des fois tu peux ne pas comprendre réellement li mu wax moo tax comme li mu wax même moom buy wax tu sens carrément de l'émotion qui se livre sur son visage. Mm-hmm. en fait c'est des c'est en fait. yow dañu mm-hmm. dund mais. si discours wax na également que par rapport ñu kii y pour cent bu ñu nekkoon ne pour cent yi ce sont des revenir également sur 1700 personnes portées disparues. mais man li may ñëwaat c'est par rapport ak booy xool statistiques yi fi muy intervenir dafa am benn étude boo xam dañ ko biral 2014 ANSD def ko. Mm-hmm. Euh, buy wane ne la force de travail au Sénégal si population bi elle est de pour cent de la population. mais si biir cinquante pour cent pour cent yooyu noonu soixante pour cent force de boobu seen at bu ngi tollu si entre quinze ak trente quatre mhm. donc xam nga ne jeunes yi di dem lab si géej wala dem fale du intérêt wu pour l'économie du pays parce que chaque âme perdue est un bras en moins pour l'économie du du Sénégal. Mhm. loolu lu ñu bënd la beneen fait yi rapport bi wane na ko bi ANSD génnee léegi sur les dix huit millions trente deux mille. Euh, euh, soixante euh, et quelque là plus de dix millions sont âgés entre dix-neuf ak trente-cinq ans trente-cinq ans mhm. donc xam nga c'est l'écrasante euh, majorité de la population qui est jeune mhm. Mhm. te ñooñu ñëpp boo leen jëlee c'est des gens qui contribuent qui sont en âge de travail qui travaillent euh, en âge de travail qui ne travaillent pas peut-être qui partent pour des raisons diverses maintenant Euh, lan moo xew xam nga bu fekkente ne également parce que il faut également qu'on essaie de d'analyser en fait les causes pour que ñu mun a xam lan mooy tax ñuy dem bi am wax na ko léegi nee na léegi gars yi dañu ne dafa am ay raisons liées à la politique mm-hmm. mais loolu également il faut prendre je dis pas que amul par de vérité mais c'est que Sénégalais yi également bu ñu demee mu yegg Europe en fonction des circonstances il y a un discours qu'ils tiennent soit pour avoir des papiers mm-hmm. pour préparer leur intégration future donc loolu bu ñu ko alimenter et ce qui n'est pas forcément dit que c'est vrai mm-hmm. des fois ils l'utilisent juste pour am un moyen de jàll donc bu ma dugg mais mais mais li am mm-hmm. ba xam nga dès lors que la migration parce que li ñuy wax mooy migration irrégulière mm-hmm. xam nga dès lors nga ne migration irrégulière ça veut dire quelque part am na benn anomalie dès lors que c'est irrégulier ça veut am na anomalie donc ce qu'il faudrait faire c'est de travailler en sorte que cette migration dite irrégulière qu'elle soit régulière te loolu réglementation la la ñu war def foofu ñu bañ jouer si kii dem motif yi mënul nekk emploi emploi kese ou précarité de l'emploi ou des choses comme ça wax na ko parce que ñi di migrer les études ont montré que la plupart des gens qui migrent au monde c'est pas des pauvres parce que l'élevage on le finance bu ñu koy financer dañuy un paquet d'argent mm. et si tu as le paquet d'argent là au lieu d'investir un truc de de de voyage tu peux dire également comme que am naa li mun naa mm. rester investir mm. ou bien mun naa def mun naa def donc du pauvre ñooy voyager parce que tu tu tu tu tu mobilises tout un écosystème pour te permettre de financer ton projet de voyage mm-hmm. loolu aussi il faut que ñu xool ko à ce niveau là maintenant li ñuy reproché fi moom mooy li nga xamante ne état bi war na seetlu ay jéego moom mooy di mettre au point des des politiques incitatives yoo xamante ne ni ñëpp dañ fay ñëw mais également de permettre de respecter le droit de discuter de déplacer des gens pour que ku nekk fekk boppam mais également de lutter contre les inégalités sociales. mais dafa am feneen feneen boo xam ne kenn du ko wax defar nga Sénégal c'est les problèmes au sein des familles notamment la polygamie <coughs> vous allez dans des zones de départ comme Saint-Louis vous avez des familles yoo xamante ne c'est des familles polygames yoo xamante pour la plupart des gens lii tax ñuy dem ci famille lay jóge parce que dafa benn injustice famille familiale bu ñuy dund wala bu seen yaay di moom mooy leen di heurter pour faj loolu ñu tax ju dem mais faj injustice sociale boobu c'est pas que la voie de la migration il y également des initiatives yi nga xamante ne peut-être état bi mu ngi koy jël fii xëy na communication bi yeggul ou bien am na ay jéego yi nga xamante ne dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale war na si war a mun a teg ay jéego pour que ces gens-là non seulement trouvent l'emploi mais c'est pas que trouver l'emploi parce que parmi ñi di dem y' a des gens yoo xamante ne ils ont déjà un emploi. yow yaa ngi dem. enseignants yaa ngi dem. mais donc ñooñu lan moo tax ñuy dem. moo tax man la question il s'agit pas de dire aux gens restez ne partez pas. Hmm. il s'agit de mettre en place les conditions. Hmm. pour permettre à ceux qui veulent voyager de le faire dans les règles de la. dans les règles comme le hmm. stipule le pacte mondial.